asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yi nga xamante ni bii ñoo baaxoo di ànd ak ñun ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru wala fu jot tey jii di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent dëppoo ak alxames ci weeru rakki gàmmu ñoo ànd ak commission bi nga xam ne ñoom la sëriñ bi tànnoon ngir ñu ko séentul weer bi mu di sëriñ Mouhamadul Mamoun bu soo feggoo ak sëriñ Abdou Diop imam ak waa daayira Muxaddamatul Xidma mbokk yi yàlla dogal nañ ni ñu ko waxe woon ci déclaration bi e, séentu nañ doon jokkoo ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci e, région yi rawatina ñi nga xamante ne bii moo di ku mel ne Serigne Bassirou Mbacke Moussa Abdou Khoudoss ak Serigne Modou Mbacke si mi nga xam ne moo lëkkale représentant Khalife général des Mourides yi nekk ci région yi e, dañuy def nag saa yu ñu séentoo ba waxtu wi jot danañ jokkoo ak kër Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha ndigal lu fa bàyyi koo rek mooy li nga xam ne moom la ñuy yéene kon nag dañuy bàyyi Serigne Abdou Diop imam mi yore kaddu gi mu leeral ñu li nga xamante ne bii moo tukkee ci eh, séntu bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bu ko sëriñ Fallou Galass la waxee rek waaw weer wii nu nekk mooy rakki gàmmoo gàmmo ñaar fukki fan ak juróom-ñeent tey. yàlla dogal nan ko raada defee defe nañ ko muy dikk ci rajo bi yéene ci ndigalul sëriñ bi nekk ñu séentu ko tegu ci xam lu wér nga ñëw yëgle ko bu ma saa bu ñu defee loolu ba noppi nag noo ngi toogee ci soowu di séentu boolem Euh, commission bi dañuy toogee foofu di séntu bi ñu séntoo nag ba waxtu wi jot lañ jokkoo kër sëñ Mountakha te déggoon dara loo xam ne euh, lu lu wér la ci fenn ci lu wane ne weer yu feeñ na booba lañ jokkoo kër sëñ Mountakha ba yëgal ko ko ba kon wax na ne ginnaaw séntu nañ ba nëgën yi ba ñu gi di sonegee sax léegi kon nañ wax ne weer wi feeñut kon ñu xam ne weer yu feeñut ñu xam ne kon suba ci ajjuma ji mooy mottali weeru rakki gàmmo ji nga xam ne kon gaaw mooy doon benn fan Eh, doon war doon ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru tubaab kon ñu xam loolu ca jàpp ko te xam ne kon weer yu feeñu suba dañuy mottali fan weer waaw ñu ngi nag sant bu baax a baax a baax rajo yi nga xam ne teew nañu fi fépp diñu jàppale ci ak mbooloo mi waa daa waa daa iratu muxaddamatul xidma ñoom it danañ ci sonn lool yoon wu ne dañuy ñëw di jokkoo ci ak correspondant yi yëpp ba eh, résultat yi yëpp ñu di ci xam lu wér weer wér kon nag noo ngi sant ñëpp Eh, tey ñaan yàlla yàggal fi sunu njiit li ci dara Serigne Touba li ba li muy yéene lépp mu àggale ko mu mu mu saxal nu ci gannaawam mu sax ci sa sa ndigal ndigalu Serigne Touba ba am ngërëmam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. salaam wa rahmatullahi wa barakaatu bokki loolu mooy kaddu yi bàyyi ko ci Serigne Abdou kon ñu xam ne tey jii di aju eh, alxemes moo doon séntu bu njëkk ñaar fukki fan ak juróom-ñeent kon suba ci ajuma ji mooy mottali weer wi fanweer. gaaw mooy doon benn fan ci weeru rakki rakkaati gàmmu kon ñu jàpp ne gaaw mooy benn fan rakkaati gàmmu seen bokk taalibe le Fallou Galass Syll fii ci jumaa ji wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa